ah tay gi jii na rek gan gu musta am dala am malik kumba malik kumba de ñew ci magal seet si wa waaw ah day def na yow li mala wo magal lepp lépp seet ma ba tay nga lank na ma magal ni maga tay nga xey ñëwal ma ah xam nga dama dégg si ragal ñu na am ko kepp ku ñëw màggal Touba sun tuba mo la wo deug la bu yag ma sun tuba da ma wo waaye ren nak waaye ren sun tuba mo wo malik kumba wa ah. malik kumba way legi malik balaa toogaay bi di bari li may laaj mooy yow sëñ Touba la indi wala soos moo la indi. <laughs> sëñ Touba moo la indi ci màggal gi wala soos la indi. ah loolu loolu question bu baaxul la. maa la hmm. ko a la ko moo ah, la ñor. moom sëñ Touba wala. Ah? soos. wala yow sëñ bi rek. de ba ñu ma ko bu ñëw ma lekk ko waaye tamit sëñ Touba ma ah, pom nag ma indi la pom wala jërëbu

sama xol set na ci yende barki khadim Buso ci fina day yefi de yëf yi rootam bon na Kumba

amul ah. ay ku ba daan ku fi ñëw. xam nga looy def ku doon ko ñu baare bi. baare fan. jox fi ngay baare bi jox rek man da ngay lekk léegi ñu dugalaatal la ko waaye léegi màggal gi kañ ngay jeex. benn coono fa am raxasu Tuuba. waaw benn coono képp fa. raxasu nag kuy sangu janaba rek. as maa ne ci bopp jàmbur bi as. maaleykum ba Fall. nga ne nga ne nga ne laaj nga watal sa bopp bi dindi ñaar ñetti létt yi ci kanam. yow kilifa nga bàyyi jël moto dafa indi Touba. dégg naa la man tam dégg naa amul benn problème amul benn muskila. mais léegi ñu xool maa ngi yow kan moo ci gën a ñàkk a doon. man sax man maa ngi leen di wax nga indi moto. boo indi ah, moto ma a ah déet watul. boo indiwul moto ma war a mën naa war a nga indi mën naa woote magal joon nga ni ma waaw wax dëgg conférence déwén nag sori nag tëndees yaa am ma wàcc moto bi kii yóbbu moto bi mu jeex tàkk ah. pare nga pour bàyyi fi moto bi ma bàyyi fi moto bi bàyyi fi moto bi ma watu ah, ah, jooju wax de confirmé na Bamba Mbàkke boo dëggalee sa bopp billaahi wallaahi taalaahi ma bàyyi fi moto <laughs> non non c'est Abdou. ah ñaar lañu yow ngay kenn. da ngay mas ak Baye. jox leen. benn femme boo xamante ne bu doon kabi nga sax. bi bi yebal ñu ba kirna mu la ne ñu kan la man ko yóbbul ñu ne. ne ko as. as añ nga nag añ damay rafetal waaye añ nga de xanaa ajan kay mënoo ko am tanaan ko añ waaye dëgg yàlla bés nga soxal añ nga añ bu rafet dëgg yàlla bés nga soxal baax a baax waaw ma lii nga ma déwér nga bala bu dee fontoo de ay muus naa ko jenc ba déwér mel ni kuy ko ne ay jenc ma ni mu ne waay ma bañ a jënaat consommé local am ñu ma fay de waaye am na ñu des de am na ñu ma boole ak yow ñoo xam ne maa leen war a jox ñooñu nañ ma muñal képp koo xam nag moo war a joxe ne ko nugum nee na as as fi ngay commencé oh as jàngoo docteur bismillah ñam xar ba commencé <laughs> lu ci xaj na ci dem àndu gaaraal yéen tax nuut lu demaat ci saako bi du ko delloo ci biti gi incha allahu képp ku ci njëkk si ngoom alifu nag da nga waat laaj añ moom da nga añ ñamaxit tey amul waay de ñama ngeen dimbali ma rek tey amul waay tey moom. dana wax ba kañ a génn ci gémmiñ tey incha rabbi. cas cas cas ne ko mu génn temps de. aw ma benn problème. Balla. ak a yàgg am yéene ñëw teeloo ko yàlla dogal sama xol seet na tey moom bég naa jow wax dëgg yàlla lii dafa kawe ci man non météo dama ko liirut ba solo ba nopp application ma koy xoolee moo dañ te yëguma ko alaaji Seydi Samb mu baax mi alaaji fan yàlla na yàlla def jàmm organiser ngeen falax falax ji de en tout gis naa ci koo xam ne tib yi moom jege na lool ta boo ko dóoree waa leen kumba waa leen góor sama xol sedd na sama sedd waa mi ngi nii mariage forcé bi defuñ dara dan maa bett di dox ma soxna rek moo nekk ni toog mariage forcé la nag defuñ dara bu ma kenn mere gis ngeen topp yaa ngi nii taxaw topp yaa ngi sedd baa sol baa ngi nii solu cosaan bi moo jiitu mariage forcé la defuñ dara ndeysaan topp yaa ngi nii topp yaa ngi nii doomu bàyyi set doomu bàyyi set doomu bàyyi sët baa ngi nii topp yaa ngi nii sët baa ngi nii doomu bàyyi sët baa ngi nii nugum nugum mooy borom sët bi. ma may soxna ci màggal bi deful dara ah, bu kenn naan nugum waxuma xewi nag ar ngeen lu ko waaj a wax seen kañ gi. ma ma seen kañ gi léegi nurootul kañ mbaam lay nuróol. te kanam gi daa am ay aas. kanam gi am aas. xam nga yii ay aas la taxawal. aas yàlla na ko gudd fan doom la waaw. amiin. 应该，反正就。